amati na fii ci biir réew mi comme nañu koy gisee bés bu yàlla sàkk gannaaw bi mu waxee lu rëy moom ki nga xamante ni nee na euh, dafa nekk ci wàllu pa diine di Serigne Assane Mbacke bu xel Xelkom fi mu nekk nii kawteef bu rëy la daal def gannaaw wax ju rëy jamu waxoon ci fan yii ñu weesu bokk na ci keneen koo xam ne teg nañ ko loxo di béy di Amady Sow kenn koo xam ne jege ñaale Serigne Assane Mbacke bu xel Xelkom la keneen kii le di Abdourahmane Lo nekk réceptionniste ca hôtel Nina ak it Xaadim Samb ñu koy woowee Jimbori ñoom ñëpp nee nañu daal ci diine gi lañu nekk lañ doon jëfe mooy que ne tëddee ay xale ay xale yu góor kenn kii mi ngi sant Diop am fukki at ak juróom-benn keneen kii mi ngi sant Cimbo am fukki at ak juróom-ñaar gannaaw bi ñu jàkkaarloo enquêteurs yi nee nañu daal ki nga xam moom mooy Serigne Assane Mbacke bu Xelkom ak ay àndandoom dañu leen doon tëddee kon ñii gannaaw bi nga xamante ni moom jàkkaarloo na ak takk der yi ci l'enquête sëriñ Assane Mbacke bu xel koom moom daal dafa waat ba tëdd si naaj bu tàng beek ci tali bi ne lii yëpp dañ ko ko def maanaam dañ koo liggéey te nee na ki ko liggéey mi ngi tudd TS moom nee na sax faju na ba sonn dem na ca Gàmbi doon faju waaye doyul doon na def ay jullee ka ñaan ngir li nga xamante ni moom lañ ko teg di liggéey mu daal di dañ neen daal li muy def yëpp tayu ko kon daal moom day jël ay xale yu góor di leen tëddee nee na loolu tayu ko sëriñ Assane Mbacke bu xel comme moo wax lu ni mel bokk na ci xaadim Samb ñu koy woowee jimboori moom it takk der yi siiwal nañ ne jàppoon nañ ko ba tëj koo kaso lu toll si juróomi at ci jëf yii lañ ko tëjee woon kon fi mu nekk daal coow sëriñ Assane Mbacke bu xel kom dana indiwaat coow lu rëy gannaaw kawteef gi mu def moom it fan yële ñu weesu waxoon na wax ju rëy rëy rëy ba ñu meloon ko ci lool kon moom daal defkatu ñaawteef la ak waxkatu lu rëy bokk na ci kawteef gi di tëddee ay xale yu góor